di gërëm sama papa mi nga xam ne moo ma daan yóbbu Touba ma nekk xale am 4 ans ba 5 ans ba 6 ans ba mën a demal sama bopp. kon moom it fa mu nekk na ko gënal fii mu jóge ah adduna bi nag xamee nañu Selbé ak Seydi Mouhamed Moustapha si sama wëllëre sama papa sama kilifa ku baax ci man. xam nga baax ak bëgg nit du alal. Mm-hmm. bëgg ca xol lay nekk yëg ca xol lay nekk te sëñ Moustapha Sy yëg na ma lool mm-hmm. si mm-hmm. du gàmmu mukk te joxuma carte invitation d'honneur wax dëgg yàlla tabaski du jot mu tas sama yaakaar kon maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér borom gàmmu gu neex gi boroom cortège ba tubaarikal la wax naa la gàmmu gi la ma ca gis kooku sëñ Moustapha Sy rek ko am yonent bi ñëw leru ci avion bi kaalaam gu rëy gi ndeke kaala yonent bi euh, fii mooy ëpp fii ñu ngi ko gis waaw waaw laa ilaha illallah maa ngi woon chambre trois cent un cortège bi ñu àndee jóge fii dem dugg ci waawoon ñu wàcc ñu dugal ñu si ay néeg dugal ma ci néegu trois cent un première woo ñu ne ñu leen ñu ndékki ñu wàcc dem ndékki ci Dakar ba woon maa ngi yore sama kurus ji wedd salaatul fatiha rek waaw dem ba nag ban ba ba mu neex loolu nag ñu wàcc dugg ci hôtel bi euh, résidence ba toog ñu woo ñu ñëw leen dallu ma dem ndékki ba pare ñëwaat tëdd nag ca lal ba pour dal lu di xaar waxtu añ macha allah dama nelaw rek gis Seydina Mohamed leeru avion bi jiitu ca kaw sëñ Moustapha Sy nekk ci ginnaaw avion bi te xam nga ne Seydina Mohamed fu mu jógee fu mu nekk du ci yàlla mhm. kon yàlla yëg na sëñ Moustapha Sy bëgg na ko ba yabal yonent bi sallallahu alayhi wa murit laa du ma soxor mukk mukk du ko soxore dama koy wax nit ñi dégg ko yàlla bëgg na ko yàlla fal na ko ilaa abad kon di ko ziyaare fu ma toll di ko bige fu ma toll ah di ko tàllal loxo rekk si Malick mu ñaanal ma buy gàmmuti ma am lu ma ko dollee muy ci ay nag muy ci ay giléem mu ci ay xar ba pare bàyyi ma ci waañ wi ma sol tenue rek doon yaay faalam loolu rek laa bëgg tëdd hôtel ba ñu may jox lekk neex na lool waaye ma soñoon bàyyi ma ci waañ bi waaw loolu moom def laa bëgg parce que gis nañ ñun bu ñu demee foofu fu mu lay teg waaw kon du ñàkk tamit sëñ Moustapha Sy aussi dinañ ci waxtaan tuuti rek ndax gis nañ ci gàmmu gi. Mhm. nga xamante ni def na ko woote mbooloo yëpp moom ah, ñëw wuyu si ko. Mhm. naam ci ki nga xamante ni moom mooy usman Sonko. Mhm. mu am lu mu wax ne daaw ci heure bi défendre naa Ousmane Sonko am na ci hôpital bi ñoo xamante ne nii woo naa leen ne leen ñu xool Pape Alé ak Ousmane Sonko parce que bu ñu ko deful ñu ngi leen di waajal mun na leen rey ñetti yoon def na ko ba pare taxaw ci kon tey bu loolu amee rafetoon na Ousmane Sonko maanaam ñëw fa. seet si ko euh, dem bari sax waaye loolu yëpp maa ngi koy xaar ci élection législative yi di ñëw dina xam ñun suñu doole fan la toll ban jàkkaan nga am ci lu sëñ Moussa Fassé wax loolu di sa xarit. benn benn ko rek nañ ko benn benn tempo tempo. d'accord <laughs> eh. film Dakar lay waxe de te kuñ naan Bamba mm-hmm. moo ñafe ba am film dakaar aduna bi du seetaan Feeling Dakar en direct mm-hmm. boo ñëwee nag ci ajaratu Selbé Ndom kiwin mm-hmm. bi mm-hmm. ah, nga xam ne lañ naan mburu mi fii la xoyom xoyomee day leer ndax dama dem ci woon dégg sëñ Moustapha Sy jigéen mi ñam sama nopp samay bët ma jàkkaarloog moom muy défendre Ousmane Sonko bañ ne Ousmane Sonko ñëw na ci gàmm gi mhm. Khalifa Sall ñëw na ci gàmm gi mhm. Baara ñëw na ci gàmm gi mhm. Oustaz Aliou Sall xam nga ne ci ibaadulaay saalihiin la bokk du dem fu amul dara nit yàlla la suñ Moustapha défendre ko ba ci feebaram ba wax na ca kenn du ko rey taxaw di jekk Macky Sall loo xam ne ak gouvernement am ne lu ñu bëgg a def Sonko mënta nekk kon bu yàlla demee ba Ousmane Sonko doonul woon dara ñu koy jàpp di ko toroxal di toj ay weeru otoom di ko xëccoo di ko dugal ca oto bi ba man mii nga xam ne du ma dara noonu lu simple Selbé Ndom doon taalibeb sëñ Tuubaa soppee Seydi Mouhamed Moustapha Sy tëdd naa yàlla woon ma ñu koy dugal ci oto bi ma def live ne ko moom frère Ousmane Sonko moom frère laa koy wax ndax nee naa ma Ousmane Sonko dama ko bëgg li tax ma bëgg ko mooy daa julli bu fii am cicatrice tudde naa ko ibadulaay salihin man dong maak fi wax tudde naa ko xayru ummatin uxrijat linnaasi Mm-hmm. te Ousmane ko jàng na alquran. Mm-hmm. lu tax ku toll ni sëñ Moustapha Sy défendre ko. Mm-hmm. ñu tëj ko ci kaso bi. ma ne leen lañ ko reyal ay nag. woo jabaram. yàlla def. ma rey nag man. ñaan te la ma cay ñaan maa ngi koy doog ko wax tey. Ousmane ko ma ne leen dina jóge bóor bii dem bóor bii. wax naa la ko ba tey. yaa ngi nii deewagoo deewaguma yal nañ gudd fan. ba yàlla def mu def ko. Mhm. Diomaye doon président xuloo nañ fi. Mhm. nga ne Ousmane Sonko mooy doon président ma ne la du doon président te xam nga ne sëñ Moustapha. ma ne ko du doon bokk élection. Mhm. te du doon président wax naa la ko nga ne ma loolu mënta nekk ma ne xanaa kon Ousmane Sonko yow dalay compal. attaqué la ci. te wallaay ba ñoom Ousmane sonk waaye gisuma woon mu doon président. kon ku toll ni Serigne Moustapha Sy bu ko défendre. yàlla def mu nekk premier ministre balaa moo dem fenn balaa moo dem fenn waroon naa xalaat ne am na góor goo xam ne moo osé woon moo amoon sañ-sañ ba wax mel tey ñëpp ne muut kenn ñi a wax waaye sama soppe bi Habib bi moom dong mu ci yëkkati am sañ-sañ ay nit ñu bëri ay ëpp na million nit nekk ci champ de course mm-hmm. mu taxaw défendre ko kon bu demee ba yàlla may ko mm-hmm. place bu nekkee gore na ndax gor du ci kanam du ci ay ree mm-hmm. du ci garaam bubb gor ci deret la balaa moon dem fenn wala ñu taxaw naan ko demal waroon naa xalaat sama góor ka toogoon ca course bi di ma défendre di yàq pouvoir bi lu mel ni ketemi ndax yàlla ak sama jëmm ji xam nga li may conseillé Ousmane Sonko na dem seet Sëñ Moustapha. loolu rek kay wax ci. Mhm. wax amul. Mhm. am na nag droit. Mhm. ginnaaw Ousmane Sonko da koo wor. seet fa ko neex mu dem fa. am na droit ni mu ngi koy xaar ci législative yi. am na ci plein droit ndax moom moom kartam kat ay taalibeem diggal nañ ko. te bu newoon taalibeem yi dem leen ngeen votel Ousmane Sonko. taalibe yi duñ ci teg baat man mii sax. bu yónni woon seex mi nga xam ne mooy bëkk néegam nii. demal ci Seyda Selbe. nga ne ko ah man kat damaa bëgg mu ut ay nit donte kon duma politicien. dem jàppale Ousmane Sonko. tey jii ci guddi gi laa koy commencé. ak ñeneen ak ñeneen ñeneen. Hmm. di gërëm Cheikh Tidiane Youm. yal na nga gudd fan Cheikh Tidiane yum yal na nga ànd ak wér ci barakati la ilaha illallah muhammadu rasulullah d'accord il a ses raisons hmm. <laughs> ah si nag hmm. il est digne de lui kooku mooy surtout sëñ Babacar si hmm. bàyyam di Cheikh Tidiane si Al maamam di Cheikh Ahmed Tijani góor gu diine gu am fulla gu am personnalité balaa koo kenn wëlbati mu wëlbati la. kooku sëñ Moustapha Sy. d' accord maman loolu am solo bu baax a baax. donc mënuñu ci sax dugg ba ci biir mais euh, du yoon ak ni nga mel sëñ Moustapha Sy donc te duma la ci laat donc je pense que gis nga ni ñu ci waxee sa xalaat sénégalais aussi euh, jàpp naa ne ànd nañ ci yow parce que li nga wax dëgg la daaw ba affaire yi moom moo génnoon wax ci kon am na droit wax ni Ousmane Sonko. kan nga mës a gis ci chef religieux. Mhm. ku taxaw wax la mu wax ba ne dañ koo bëgg a rey waaye kenn du ko rey la muy xam ba woo ay docteuram ku ko weddi mu nga bayna zalika laa ilaa haulaai wala ilaa haulaai doo jullit doo catholique doo juif doo tus looloy mu ku ko weddi rek naa féq man maa ko fekke te ku dee ak sa bàmmeel Sénégal yi Moustapha Sy moo nekk ci dëgg. nañu génnewaat intégralité bi. Mhm. Hmm. def nañ ko vidéo de. nañu génnewaat intégralité bi. d'accord dafa ne Jomaay ku baax la. Mhm. ku waxul Jomaay ku baax nga tamit. Mhm. naa fekk nga. mu zab zabi na nga bay na zaalika laa ilaaha wala ilaha olaay doo jullit doo catholique doo juif doo faramason doo loobi doo dara mm-hmm. léegi jomaay lu mu fi def daa mm-hmm. xulu ndax daa xeex ndax jomaay daa saaga kenn mm. ndax jomaay daa xas kenn mm. kon yow ku gërëmul yàlla doo gërëm nit ku gërëmul nit it doo gërëm yàlla mm. sëñ Moustapha Sy dafa am plein droit ne jomaay nag ku baax la ndax mën naa koo jur effectivement dëgg la. li hmm. nga sëñ Moustapha Sy bu juumee. Hmm. damay wax ne dafa juum. Hmm. man sax man Selbé man Selbé Ndom awma beneen tur Selbé Ndom laa bu ma sañoon sax sëñ Moustapha Sy sax du politique. ndax xam nga lu tax. dafa dépassé politique niveau dafa dépassé politique. koo xam ne bu ñu la bëggee def dara yàlla aj la diggante asamaan ak suuf. giskat di rek ñoo koy gis dépassé nga politique billahi wallahi tallahi wallahi alazim ma dee dem safara bu ma sañoon sëñ Moustapha Sy du sax bëggum ko sax ndax ñu fooñu dañoo bari nga gis nit ñoo xam ne yow mii am nga dara mu ñëw sukk ci sa kanam jooytu la nga merlu ko jàppale ko ci baatin te doo ci boole wax bu mu am la bëgg dalay wor looloo fi ne. xam naa kuy sëñ Moustapha Sy. d'accord du du li ma ko bëgg de. Mhm. man duma dem fa dara newul de. Mhm. am naa ceeb am naa diwlin mhm. am naa yàpp xar am naa yàpp nag am naa yàpp gileem am naa ganaar tey loo bëggoon léegi ñu toggal la ceebu jën te duñu génn. boo bëggoon ceebu yàpp ñu toggal la te duñ dem marché. maafe gerte macaroni vermicelle spaghetti loo ci bëgg ñu defal la ko te duma du ñu génn buntu kër gi kon man suñu Moustapha Sy at ba at laa koy gis mm-hmm. ñaanuma audience taxawaaluma ci buntu këram ndax awma dara nag waaye ak maa bëgg jàmm ak salaam ku yéene jàmm mm-hmm. danga koy may jàmm na Ousmane Sonko dem seetu suñu Moustapha si war naa am kersa sax hmm. jomaay nag defut waxut hmm. demul ci sëñ Moustapha Sy tàllal ko dañ waxante dëgg hmm. ku waxul jomaay baax na dangaa bon c'est la première fois ñu am président boo xam ne xale xoolal am fulla ak fayda xulawut xeexul ban Chine ban ban ban président moo fa demagum Chine ñun léegi dañuy cincina waaw dañuy cincina dañuy cincin kay. d'accord euh, maman loolu am na solo bu baax. Euh, nee naa la sa diggante ak Serigne Moustapha Sy moom sénégalais yi euh, xam nañ ko moo tax duñ toog te duñ waxtaan ci moom. Hmm. ni mu la fonkee ak ni nga xamante ne noonu la bëggee. ko hmm. yaa wax sànq boo sañoon di dafa dem dugg ci waañ bi mais moom bëgg gim la bëgg moom moo tax day teg fi nga xamante ni day kawe sa <laughs> jour bi ma recevoir eh? dama ko ne si Malick dama mën togg dee ma bàyyi ci waaju mu ree ne ma sama gan nga gan dañ koy teral mm-hmm. wallaay d'accord mm-hmm. maman loolu am na solo bu baax mm-hmm. mais dañuy avancer rek nee naa loolu moom muñ toon ñàkk waxtaan dañuy dem nag ci ki nga xamante ni moom mooy li xew mooy actualité bi Sénégal yëpp di ci di ci wax di euh, Doro Gueye dafa takkaat ki nga xamante ni moom mooy Clara. rek ay dara génn ay vidéo mu def coow nag ban jàngat nga am ci loolu. xam nga dafa njëkk takk Clara ñu koy wooye Clarisse mu nekkoon chrétienne damay bañ a wax santam Clarisse la tudd ñu naan ko Clara hmm. chrétienne la woon après mu tuub. Hmm. ah yàlla def mu sëy moom Doro Gueye Doro Gueye jullit la am na droit takk ñeent jabar mu gis Raka Aidara bëggu ko takku ko Doro Gueye am jafe-jafe Clara fekk ko fa ah, ñaan baat ñu may ko baat xanaa kon léegi Raka yi aw li Sénégalais moo am man ci ma fou. ñaanuma rek ay dërë dërëm. Mhm. ñaanuma Clara dërëm. Mhm. Clara Viviane moo tax ma xam ko. ak ñi koy woy mu leen di baatare. Mhm. man Clara baatarew ma. xaw ma fu mu dëkk. musuma ko gis jaxran. nii rek ay dara. waaye ginnaaw yàlla def na dañ koo takkoon. ci diine. ci ko. dem takki rak euh, rakki Clara ñaan baat ñu may ko baat xanaa rakki mooy aaw buñ takkaatee Clara Clara mooy ñaareel mu nekk ci ginnaaw man mii sama jëkkër ji ma njëkk takk man sama papa yi doom maa nekkoon aaw bi ma tasee daa mhm. takk keneen mooy aawo te jii bu yàlla defoon ma delluwaat ak moom mhm. ñaareel laay doon dootuma nekkaat aawo waaw léegi mhm. waaye yow Clara moom lu mu bëgg hmm. ñuy wax mu naan nii ah, doo def nii nii ngay def nii nii nga nekkatoo nii bu njëkk ba nga nekkoon nii <laughs> balaa rakk yi ay dara di ñëw hmm. moom nga nekkoon nii rakk ay dara ñëw nekk nii. léegi. yow nga dem. Mm. rakk ay dara ñëw am position un. Mm-hmm. kon yow boo ñëwaatee deux ngay doon toppat ci rakk rek. d'accord maman euh, li li li jaaxal tamit sénégalais yi mooy. Mm. Euh, comme ni ko waxee. Mm-hmm. loolu moom loolu diine wax. Mm-hmm. mais euh, rakk presque nëbb na sëy bi ay weer lan moo waral ñu takkaat kee. xëy na dañ ko ko wax xëy na dañ ko ko wax. Mm. kalaaraa du ñeexu ñebbe de mm. am na fit sadik na mm-hmm. waaw xëy na jëkkëram moo ko ne nëbbal mm. mu topp ndigalu jëkkëram bañ ko weddee nag ne takku ko am na droit génne ay vidéo ngone mariage am elle a ses raisons ñoom ñaar ñëpp man su taalibe suñ Bamba laa kenn moo ma mën a wax ne man nangam mu metti ma muy sëñ Moustapha Sy amul keneen ku ma keer jëmmi sëñ Moustapha Sy moo tax rukku ma réew mi am naa fit ñeme naa dëgg yàlla rek laa ragal dama am kilifa hmm. Clara toi Racky d'accord sama foo li ngay waxee ne Sénégal du jàpp kër yi da ngay xaw ma rakk li ma la wax mhm. kenn tooyalul sama ceeb d'accord man sama ceeb borom mbaan mu réy mi koy ceebal ku dul sëñ Moussa Fass yi mayu ma fi un million ku dul sëñ Moussa Fass yi faalewu ma man faalewu leen yàlla def na sëñ Moussa Fass yi laa gëm mhm. moom laa faale mhm. moom laa yëg moo tax may tëj sama kër gi jël ngooñ bu bari jox ko sama xar yee taaj leen ndox mu bari benn fan laay fanaan Tiwaawoon deuxième jour ba ca ngoon ma ñibbisi joxaat leen lekk jëmm jooju rek a ma ko jaral billaahi wallahi tallaahi jullit laa sama xol bi yàlla rekk a ci ne musumaa gis rek ay dara aw ma numéro téléphone kalaaraa ci télé laa ko gisee surtout mariage yu doomu Viviane bi nga xàmmee Clara hmm. waaye lii dëgg laay wax Racky Aïdara jàppaluma ko tànk dugaluma àjjana hmm. jàppaluma tànk Clara dugaluma àjjana mais moo génnoon bàyyi postam moo hmm. abandonné woon postam keneen riigu kon na demaat ca ginnaaw mënut a dekk première kat nañ waxante dëgg. bu ma kenn mere nag. dëgg rek laay wax ndax bu ma deewee sama loxo ndeyjoor bi laay laloo laloo ma loxo kenn dugguma ci bàmmeelu kenn ni ngay dundee noonu la dee amee mais Clara mooy deuxième. Mhm. d' accord mais maman bi nga xamante ni Doro Gueye nekk na ko est ce que tey yoon la ñuy ñuy wax fii di wax fii loolu tamit bañ taaxan nga ci am. Doro Gueye waxlawul kenn ndax moom ci boppam waxut. est ce nekkul ay jaww dañ koy manipuler comme ni ko sénégalais yi di waxee. waaw xam nga borom alal yi en général maanaam li ñuy may seen jabar yi dafay ëpp gis nga yow mi yàgg naa ak yow xaw ma sa jabar maa seet wax la sa doom bu jigéen maa xool ne la yaa ngi jabar am nga doom bu jigéen te waxoo maanaam côté boobu moom xam naa ne doo rëggee dina si jóg parce que am doore ji indi doore ji bëri na doore Gueye musuma koo gis xaw ma ko dama ko déggoon rek mu amee problème te ma dégg lu baax li muy def moo taxoon ma ñaanal ko ci barakati laa ilaha illallahu muhammadu rasulullah yàlla génn ko ci li mu nekk alhamdulillahi rabbil alamin mais Clara sax da dul moroom ay dara nag rek ay dara mi ngi doogu juddu Clara ko mag foofu Clara ko njëkk tëdd ci ay million rob yu baax yi Clara ko njëkk a sol ay Aïdara kon Racky Aïdara mi mujjee ñëw moo waroon def ay affaire yu manquant mais pas Clara mi ñuy wax ne dafa am classe dafa am personnalité bu yàggee nag mu yem ak euh, waya waya yii yii yii zembare ci diggi mbedd bi ak ak di nu mu tudd ci ay golo golo ci diggi mbedd billaahi wallahi tallahi su ma mënoon gis Clara dina ne toj dootu génne vidéo defaat na mariage woo na Mor Njaay géwél takkaat nañ ko na ne muut te nekk deuxième position d'accord mooy <laughs> yaakaar naa loolu am na solo hmm. leer na li nga xamante ni wax nga ko parce que ku la gis xam ne nit ku dëgg nga te kenn nenu ma waaw boo kenn fukk. Mhm. Kalaara lu mu am na tey. Mhm. Racky Aidara lu mu am na tey. Doro Gueye lu mu am na tey. Mhm. yàlla rek tax may wax waxuma pour ñu may ma xaalis man du ma kenn. xanaa yàlla yàlla daal dinaa ko feccal bu ma neexee. d'accord maman loolu am na solo bu baax a baax. donc nag dañuy laalaat tuuti rek ci kaaw Aziz Dabala ak Naboulaye naam toogoon naa waxoon mu ci yu bari yoo xamante ne ne vraiment sénégalais yi gis nañ ko donc Naboulaye ay avocat am dañoo déposé li nga xam te moom mooy liberté provisoire donc euh, joxuñu ko ban jàkkaan aussi nga ci am ci am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw temb pour génn Naboulaye fu mu nekk. xam nga Fatou Lawbe maa koy ziar dafa am lu mu way doole ma mun dëgg waaye yàlla noppi na Nabou Leye jigéen la mat naa ko yaay wala mu mat ko mag mais ah xanaa mën na ko la génn heure da man allo ah, yaakaar de waaw duma ci sori ñëwoon naa la affaire yi des na nga ne jeex na ma ne la des na te am nañ kuñ ci génnewaat te enquête baa ngi dem ba tey xëy na nag dañoo waxoon Nabou Leye day génn pour nit ñi wàññi wax ju bari ci waaw xam naa looloo taxoon ñu def ko mm. góoma léegi de xanaa am nañ ci yaakaar ci yàlla xam nga moom Sénégal la fii moom mm-hmm. fii moom lépp a ngi fi mm-hmm. waaw am na ay sëriñ yoo xam ne buñ ko defaloon ci lekk day man na xaw ma sëriñ yooyu bu ma ko mënoon sax doo ma ko defal na bu lay moom. d'accord euh, benn actualité bu maanaam benn information bu bu ñëwaat ci lool aussi. Mhm. fan yii passé semaine ba ay trois heures de matin. jot nañu dégg que ni euh, bàmmeelu Aziz Dabala dañ ko doon sulli ba maanaam ñi nga xamante ne ñooy takk der yi dem alerte boole ñi nga xamante ne ñooy gardien pour ñu surveiller li nga xamante ni moom mooy. fi Aziz tëdd loolu tamit maman ko jàngatee aussi. dara dama ko gëmul sax. Mhm. gëmuma ko c'est que Sénégal. Mhm. bu dee juróom-ñeent fukk la bu dee téeméer la. Mhm. fukki ñooy wax ñooy ñooy ñoo koy teg ci yoon. bëgg information mën naa tax ñu créer loolu. rien que pour nit ñi seetaan leen. mais loolu gëmuma ko. ñu gën a siiw Aziz Dabala lañ suul te kenn suulewu leen kon bu ñu taxawee naan dañoo suul Aziz Dabala bu dëgg. lay def comme ni ko dara dama ko gëmut damay zappé. ah am na ñoo xam ne dañu xiif wax dañu wax lu waxu. ngaw mhm. eh, ma ko. <laughs> dina dalal. Mhm. Euh, temps amul te gis nga euh, dañ nga bàyyi yëpp toog di la wax que ni ñu am mbégte rek ci yow tey la gën a yokku di bàyyi nga tàggu ko mbokk internet Feeling Dakar TV doon seetaan ak li nga xam te ni sopp nañ la di la topp à chaque waaw di wax euh, oustaz Modou du mhm, waaw. na def ni Aziz Ndiaye def. Mhm. yëpp ay camion ceebam. di ko jox jaam ni mhm. def ay nag yu bëri. ut ay traiteur. ut boisson di ko joxe moo gën nekk di wax moom palaasam moom du pour dàgg sante mm. palaas Oustaz Modou Fall ci àdduna bi Sénégal gii mm. du dàgg sante moo tay wax en moom Modou Fall de maa ko ci cabaxal rek <laughs> voilà <laughs> loolu loolu erreur bu mu def rek ah, loolu moom waaw loolu moom du waxam mm-hmm. man ci mm-hmm. ndax yenn saa yi ma déglu ay kiyam day mel ni man lu may dund luñ may xeex day mel ni oustaz Modou Fall da koo xam. la mm-hmm. ma koy déglu. Mm-hmm. te man damaa dëgër bopp nag boo dul waxkatu dëgg du la déglu. Mm-hmm. kon maanaam na xam ne ay jaami yàlla nga koy déglu. maanaam euh, bu mu ut ci ko boo xam ne kenn xoolu ko ci. te bu nit ñi di taxaw di julli góor ñi. mën nañ koo jiital ni ko jiiteel. man mii di jigéen du ma jiite. bu nit deewee mm-hmm. am na droit dem taxaw ci bàmmeel ba ñaanal ko mm-hmm. ba yàlla wàcce yërmande ci moom nit ñi loolu lañuy xaar ci moom mm-hmm. mais pas ay dàgg santeeg maa tey ak yooyu boobu doxul de mais Aïssatou tamit Aïssatou Diop la euh, vraiment ah. bëggeewu ma ko nii moom bu fekkoonte ñoom dañoo Oustaz Modou Fall da koo tooñ am na droit def réplique moom invité wul Oustaz Modou Fall mm-hmm. Assis Ndiaye mm-hmm. moom la yàlla teral mm-hmm. Khoudia Diop liggéey Alaaji Aala Ndiaye ubbi buntu ba bëgg Seydil Hadji Malick doon taalibe sëñ sëñ Babacar Si sus ci liggéeyal bàyyi fi ay doomam woon leen yoon ñu topp seen tànki bàyyi kenn ku ne am nga droit invité ña ngay invité ñoo war a xam ne lii ay jàng la ñu wormaal bisub yonent bi mm-hmm. mais Aziz Ndiaye bu defoon dara dama naan moo ko def mm-hmm. Aziz sabadooram la sol jël kurusam def ci baatam mm-hmm. oustaz Modou Fall garaam bu bu la sol tëgguñu fa suus suus tëgguñu fa gulu gulu zemberewuñu <laughs> vraiment on d'accord gis nga man <laughs> kenn gënu dof Sénégal xam nga li booy naan déquince mm-hmm. koo def waaye ku ma tooñul yow loo def yaa xam sama yoon nekku ci mm-hmm. Aïssatou Diop Fall mm-hmm. dafa am ay doom am na boroom kër Walfadjri la njëkk a nekk doogu ñëw TFM ñu teg ko ci palaas bu fort bu ma sañoon bu joteeg waa TFM ñu def ko frigo di ko fay du jar mu toog di ko wax du moom rek lañu frigo frigo nañ ñu bare bare bare bare bu ma sañoon nu mu commencé woon rek doon kilifa TFM maanaam mu continuer ko parce que am na loo xam ne amul sens quand même dañ lay jàpp wax la loo xam ne waruñu la ko wax mm-hmm. waaw moom maa ngi dégg mu naan pangalanga jaru ko yaay booy jaru ko. Mhm. walaay jaru ko. jaru ko mhm. vraiment. jërëjëf ah. Ah, kon léegi nag moom. te war naa la loo mës a gis. waaw moo woo biir nekk war xamante ne nii dem ma wax est doo mbay ci ay loo xamante ni mën naa ne ay miracle la loo bu la neexee ma jox la ko. Mhm. may dina ko dugal. dinañ ko woon sëñ bii borom vision bi euh, yàlla mooy may man souhaité moon doon setkat déedéet toggukat laa souhaité woon doon yàlla nag mooy dogal utuma ko ma gëm nag setkat baa ngi nii ah may dina dugal numéro yi nga ñu joxe dig daje gaa yi li ñu war a wax waxuñu ko nañ wax lii këpp gaal yi accident yi aman ah, de keroog def naa ñetti nag ak te su ma amaatee dama koy tuuru hmm. loolu mooy jàpp ci sa réew waaye xuloo dagg sante te yow am na lii am naa lii si nga li bay di lekk ba nay bay cëpp-cëppi xar lekk na ko ne muut nañu dal ànd ak yàlla te am ab yar moo solo maa ngi nuyu bàmba nag bu baax a baax sama doom ji boroom xaalis bu bari bi ah

koo xam ne sama mbokku catholique la waaye daf ma tuddee doom billaay mi ngi ni ñaanal leen ma ko yàlla xare ko àjjana John Gomis la tudd moom mu tuddee doom doomam baa ngi fii ci biir kër gi samedi daal daal liggéey ba wàcc dugg biir këram dugg waañam daanu fa la xale bu ndaw ñaanal leen ma ko moom mu njëkk a tuddee doom ci chrétien hmm. vraiment jërëjëf